biñ ko xalaatee ba léegi daanaka toll na juróomi at li nag bracelet électronique la moo di ab jumtuwaay boo xam ne li ko waral moo di fexe ba wàññi bu baax a baax ñi nga xam ne caabi da leen féete ginnaaw te ñu nekk ci prison yi réew mi ci barab bi nag lañ leen di surveiller moo di ab centre bu am solo ci njël benn nag daañu tàmbale ak junni bracelet électronique. bracelet électronique boobu nekk na loo xam ne lu am solo la fii ci Afrique yëpp daanaka Afrique de l'Ouest laay wax Sénégal moo njëkk a lancé centre de surveillance électronique ci Afrique bi mooy ñaareel bi donc loolu dafa nekk loo xamante ne lu am solo la te Sénégal jàpp naa ne loolu sax suñ ko réussir incha allah mun na sax inspiré yeneen dëkk yoo xamante ne nekk nekk nekk nañu Afrique xam nga Sénégal yu bari euh, euh, souvent ñun ñoo koy def mun nañu waxee exemple yu bari moo tax dañuy recevoir souvent semaine bii rek jot naa. ñaari délégation réew pour wax leen Mali ak Niger yu ma bind lettre ne ma dañoo bëgg ñëw fii def visite pour xool Sénégal justice bi ni muy fonctionner ndax Sénégal dafa am justice boo xam ne bu mucc ayib la Sénégal dafa am justice boo xamante ne dañ koo ràññee ci àddina bi ràññee ko ci Afrique ñu bari nag bëgg ñëw pour inspiré wu ci expérience Sénégal. laataa ñu àgg fii nag am na ay dispositions yoo xam ne jël nañ ko ngir modifier lii di code pénal bu Sénégal ngir lii mën a dëppoo ak yoon ci atum 2020 mu doon ab gis-gis bu ànd ak yërmande te président de la république jagleel ko ñi nga xam ne ñoo ko yellool. ñu def ba nga xamante ne ci justice mun nañu mën a téye nit def ay enquête xool ndax liñ koy toppee euh, dëgg la wallu dëgg. wala mun nañu tamit jël nit daan ko waaye bañ ko dugal forcément kaso wala soo ko dugalee kaso ba mu def benn diir nga mën ko génne waaye loolu yëpp nag li koy yombal mooy bracelet électronique ndaxte nit tamit munul euh, yoon soxla ko justice soxla ko wala ñu tëj ko rek nga ne ko da ngay génn ndaxte dañ laa yërëm dangay génn noonu rek déedéet ndaxte mën na génn tamit ñu soxla ko duñ ko mën a gis euh, mun na su fekkee tamit dafa war a dem kaso dafa war a dem kaso waaye su nekkee itam kaso am comportement bu baax conduite bu baax yenn saa itam mun nañu xool nan lañu ñu mun a alléger ba mu génn loolu mooy indi par exemple président ko ni ma ko waxee sànq muy def depuis quelques années ay grâce yu bari grâce yu bari ndaxte dafa bëgg tamit ñu bañ a garder nit ñi lu yàgg ci prison yi. gannaaw ministère de la justice ay ministères yu mel ni santé intérieur forces armées daañu taxaw tem ngir projet bi mën a antu. loolu nag daanaka euh, feeñ na fi bu baax a baax ndaxte personnel bi pare na ngir tàmbale li nga xam ne moo di liggéey bi.